papa ñëw leen bala bu maa rey. trois. jë jëgal lii quatre. kii ba nga ko war a rey sax. mais pourquoi ñu ñuy def lu mel nii. ndaxte nag amul benn sens. soo xamoon ni politique bi na du ma ci mës a dugg. exactement lii laa la bëggoon a wax mais yow est-ce que amu leen tamit beneen pexe boo xam ne war nañ leen ci mën a génne. bonne porte de sol de. te li ma jaaxal mooy lan moo tax mënuñoo jëlal suñu bopp suñu décision ba mën ñoo génn ci torof torof yu ñu nekk ba faw kon signé rek nga mën a def. exactement loolu lañ bëgg ma def. mais nga nekk njiitum réew te mënuñu la bàyyi nga doxal justice ngir jàmmu réew mi mais loolu ban sens la am. dëgg maa ngi bëgg ma signé ko. du ma ko def day nasaxal sama réew toroxal sama askan te sacrifice boobu dara jaralu ma même bu ci sama propre intérêt nekkee du ko def. léegi est-ce que sa yeneen naataangoo yi li ci yeneen réew yi ngeen toog waxtaane ko trouver solution loolu est-ce que gënul tamit. Eh, ñooñu nga xam ne nii génn wàll yëpp signé nañ ma lool dañ lay déglu ba nga wax pare ñu wor la dañu yoolal waaw. lan moo xew fii fan laa nekk yow la kan nekk mais tey ngaa démissionné ba ak a neexoon nekk option bu kon la may gënal mais du ma ko mën Son Excellence. mais jeune bi kan. bu fi jéem a woo kenn te sax boo ko jéemee ce sera fini sa café laa la te bëggoon nga naan ko lii wala muy seet. mais jeune homme yow la kan ak lan ngay def ci kër gi. booy yow osé nga de yow kan moo la jox léegi nga dugg sama na neex bu doon da ngaa topp ma bëgg jeune homme mooy nga jóg nga génn fii léegi wala man wàcce la. eh chéri tegal arme bi tegal arme bi tegal arme bi tegal arme bi. eh tegal sa fowukaay bi soo bëggee mucc. dinaa ko mais boo jógul sa bakkan fii lay des. un deux. soxna si nee naa la soo bëggee mucc nga teg sa fowukaay boobu. trois. jëtu jëtu tegal li quatre. jëtu mbir mi daa gën a compliqué comme ni nga ko yaakaaree. cinq. six. sept. huit. neuf. dama ni nga yem foofu wala mu wàcce la. non non dafa naaj non non non dafa naaj dafa naaj non chérie non non non chérie bàyyi bàyyi ko rek waroon naa ko bay bu toj sa bopp bi. damaa bëgg nga wax ak sa papa nga jéem ko convaincre su dee bëgg nga dund. waa waa d'accord sama yaay sama yaay na ñëw bala ñu maa rey. gis nga fii fii nga nekk danga may obéir nga def lu mu lay wax sinon dama lay rey. waa d'accord lépp loo bëgg dinaa ko def dinaa def lépp li nga bëgg. est-ce que yaa ngi sóor sa bakkan bi ngay tay de ak ku mën di doon bu fekkee ni da ngeen soxor iñaan foog ni mën ngeen maa pousser ba ma war sama askan bi te xam nga lu ma bëgg nga jóg léegi génn ci biti léegi gis nga xam nga lii lañ doon waxtaanee sànq ba léegi gis nga. waaw ah, loolu ngeen di wax xanaa su ngeen dégloo lii di ngeen changé jëlal nga wax sa bopp. allo papa. jox leen ko lim leen di laaj. papa dina ma rey de. papa ñëw leen bala mu maa rey. jaar. maa ngi waatal. jaara boole. ci li may bëgg a waat. maa rey. ndek. leen bala mu maa rey. naa la fekk. naa la defal affaire. ñëwulee bala mu maa rey jaar waaye kii ba nu ko war a rey sax eh tegu si sa jabar ji te d'ailleurs sax pour information sa doom yu góor yi ñu nekk à l'étranger kenn ku ci ne am na ko koy toog maintenant nag la balle est dans votre camp Thierry. tey nga maa dimbali nga signé. mën a sama doom ju jigéen ji ndaxte nag bëgguma dara lu arrivé sama njaboot ci gis nga dañu ma tànn jiital ma wóolu ma ba na dara dara dara dara dara du ma leen war te dara mun na tax ma war leen jaral na ma sax ba ma sacrifice sama njaboot bi dara laa si ñëw. gannaaw ba demee na noonu kontaan bu mu ngi dem deux deret yooyu nekk bitim réew foog nga ni mën nañ maa signalé loo xam ne day lor sama askan. duma ko def duma ko def. gis man kenn du ma menacé man kilifa laa yaa ngi dégg nga la. ay chéri chéri dimbali ñu chéri xoolal ci njaboot gi ñoo leen bokk jur. gis nga man simple mercenaire la sama dund bi jarul dara suñu leen papier yi. suñu <laughs> ma dara dara laa si ñëw. dix secondes moo leen dese neuf huit. ay chéri chéri signer papier yi. chéri suñu bakkalu du ma ko signer. chéri pour def du ma ko def. chéri chéri boo defee nii mu ñaaw. ma ne sama doomi réew auzu billaahi mina shaytaani rajiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaah waaw li moom mooy doon moom waaw an naga bonni par ce que somo annduno ɗum o wiyata wonma invité réunion jamen he aɗa helsini hoorema par ce que sa ari toon ko gacce ma de gati rewɓe wonɓe toon ɓe fof membimo ɗum ala fulla ala fayida e hoorema anda hoorema yo ceeri ɗum hen joni noon min mi faami lan moo xew daal debbo VIP min komi gorko VIP aɗa jaa an noon way garano bat jaar aɗa jaa jarani ɗo kayi artin fabio nde ham wonma toon suppinma aɗa jaa coot ƴetta kalko jiɗɗa min mi yoɓa mbiɗa wawi ɗum noon ɓuɗu ɓuɗu de ɓuɗu aɗa mawnikino aɗa bakka mbeɗa wiya ham aɗa nawmi fabio mais lan la lan moo xew fabio oɗon ko min woni toon seera miliyeto ko an yiyata faaɓi o jooni ɗum fof wan noon la resto ɓurɗo wawde wadde walla passport ɓurɗo wadde liste gara jooɗo ten jewri en walla en plus so ɗum noon yonanima yen hay solaɓe bisin jooɗoɗen toon jewten a ɗi mum ɗo cimana fongaɗemti de insister. pour toi. ah ku mu uh, ma doon waay. bien mi ko waxal. plus un la ma doosa hen ndiyam ha lekki mawna naftoroɗa sabu ma heɓata julɓe kala fof ko jiiɗa e aduna ko muñal e nunɗal